di seede ci sunu bopp ne yàlla kenn la amul bokkaale associé wul ak kenn ngir taxawal nguuram di seede itam ne yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawu yàlla la bu yàlla yónni ci ñun jox ko njub jox ko leer ñu ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu maynu ñuy sax di ànd ak yonent bi ba lakk ngërëmu borom bi subhanahu wa taala mbokk yi ñu ngi fàttali rek ni bakk yii nu bakk bi di tudd màggaayam di tudd rëyaayam di tudd ay cantam yu amul dayo di tudd sellaayam doon ci amunu kàtt nu tudd ko ak sunu làmmeñ waaye namm nanu ko sunu xol nee du nu ci jóg nag suba ak ngoon nee buur boobu mooy ki sàkk lépp lu mu subhaanahu wa taala nee na moo bind te associé wul ak ku dul sunu borom ku dul sunu borom lépp loo taxawal da nga am ci loo sukkandiku ba taxawal lool ku dul sunu borom rek am daraja boo mën a am da nga am ci mën a taxawal dara te la nga sukkandiku sunu borom yàlla rek mooy xayyu di alqayyum moom moo taxaw moo def lépp te sukkandikuwul ci dara mooy dund bu dee topp nit subhanahu ne kooku nga xamne mo sak do ma dama indi ko fi ci adina bi sant ko ay jëf mu neca ba keroog apam di jeex mu jël ci wat ko neena bur bobu mo ñu taralal tay bés bu mel nii di bésu feet ñeel jullit yi yéen julit yi da nga yek ne bisu tay bi moy seen feet neena lu feet rëy rëy ci adina yéen bi moy seen bos neena yéen ci yàlla muhammad sallallahu alaihi wasallam mo ne xeet mu nekk yàlla wutal na ko feetam waaye nee na sama xeet bii mooy seen feet tey mooy bésu tabaski bii nu nekk tey moo tax nee na nanu puukarewu ne nu bége feet gii nu yàlla sédde jaare ko ci yonent sallallahu sallam jox feet gi bépp àq bu mu laaj lépp lu ci borom bi santaane rek nee na nanu ca taxaw parce que nee na moom la nu yàlla sédde xeet ya mu sédde woon feet nee na feete nanu seen feet bu yàgg nee ñun nag bii mooy sunu feet nee na yàlla moo defal xeetu yeneen ñaari feet fitre muy feetu korité ak li ñu tuddee iidul adha ñu naan ko iidul kabir muy feetu tabaski boo ne iidul kabir mooy tekki feet bu mag ji parce que l'islam ñaari feet yooyu la am mooy korité ak tabaski c'est-à-dire korité am na doole lool waaye feet yi mu ne ñaari feet yi dong nag la yàlla defal sama xeet ñu war ka nekk di ko màggal ci kaw daf nee na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 journée bi yépp sax nee na sa bu mu dañ rek di bàpp yàlla parce que nee na loolu mooy taaru feet bi nee na beneen bi ci des mooy julli mooy barab bii nu daje tey di fi jooxe waxtu wii sunu borom sant ñu war ka taxawe nee na loolu itam ci taaru feet gi la bokk dëgg la naaj bi tàng na waaye nag ku nekk yàlla ngay defal xamuloo ne borom bi nu sàkk sàkk jantam bii muy dox mission ci ñun te mooy mu di ñu tàngalal même bu fekkee tàngoor wu léeg-léeg sax mu lor tuuti ci sunu bakken la mu jëriñ moo ko ëpp nee na rawatina bu fekkee jataay bi jataayam jaamu yàlla la nga defaraat sa yéene yëg ne ki la sàkkal jëmm ji mérito ci sa jëmm ji lu ëpp jant tàngoor am nañu yàlla may kàttan googu ñu mën ko résister te yàlla rek sax na bokk na ci itam ci taaru fet gi mooy rendi nee na mu taaraleenu fet gi ñu rendi gàtt jaamoo ko sunu borom danga koy def taabudan lillahi taala xaalisan danga koy def rek ngir nga jaamu ko suñu borom dëgg la ñu royee ko maam ibrahim alayhi salaam moom nga xam ne moom moo njëkk sunnaal feet bu mel nii ci kaw suuf mu tax nee na sunu tabaski bii du nu fàttali dara lu dul tabaski maam ibrahim ba alayhi salaam nga xam ne moom doomam la nar tabaskee te dara yóbbuwu ko loolu lu dul mbëggeelam ci sunu borom ak kawe gu mu kawe ci xolam yëpp ne àddina doom bu góor lañu ñu jël def ko yàlla arab ni mu meloon ci doom bu góor dafa jéggi dayo da leen daan jaral bu ñu amee doom bu góor dañu koy feete bu ñu amee bu jigéen dañu koy rey dañu la daan xas sax bu dee jigéen ñi kese ngay jur dañu lay xas parce que ñoom gëmuñu woon ci àddina lu dul xeex akub defante rek jàpp nañ ne góor a ka mën def moo tax ba ñu tegoon doom ju góor boo ko natt ci dayoo ba rek weesu la maam Ibrahima alayhi salaam amal leen ne lu ngeen yëkkati ci àddina kaweel ko ba mu kawe du dara ci man par rapport ak sunu borom mooy ba mu saraxee gàttam ya joxe alalam joxe léppam ñu naan dafa dof mu ne dooma gën a fóot ci yéen bu ma ko yàlla joxoon ma rendi ko te yàlla tax maanaam ma jaamoo yàlla sama doom te yéen kenn mënu ko ci yéen waaye taxul nu gëm ka yàlla may ko chance Ibrahima def examen bi muy jël doomam yàlla may ko doom bu góor muy benn ci moom mu fas ku yéene ren di jaamoo ko yàlla te doyewu ma ko dara yàlla ma ko joxoon maa ngi koy delloo suñu borom ñu defe ne day caaxaan mu dëggal jàpp xale bi tëral jël paakaam teg ci put gi xale bi ne ko takk mu takk ko jël paaka bi di dawal yàlla ne ko doy na fa aslama wa tallahu lil jabin wa nadaynahu an ya ibrahim qad sadaqta ru'ya qad sadaqta ru'ya yàlla ne ko doy na jaratu ko parce que man soxla wu ma nga rendi xale bi ngëm-ngëm bi laa leen doon wat ba nu xam ne maa ëpp xale bi ci ñoom te ñoom mënuñu loolu ba tax nee feet bi loolu rek la ñu war a fàttali mooy sunu alal fan la toll ci sunu xol par rapport ak sunu xol nee na sunu njaboot fan la toll ci sunu xol par rapport ak sunu xol Ibrahim réussite examen boobu moo tax mu feet feet gii mën a rendi xar ñun nag sunu rendi xar sax dañ ko war a seetaan parce ko xamne yalla jaralu la dara yalla jaralu la dara dara nga bëgg leen di xar ci turu yalla yaangi toñ xar xaram hmm. moo tax nee jullit bi war na natt ngeemam ba yëg ni lu yalla yalla moko ko ci moom te mi ngi ko mën xamé ci bis bu yalla soxla loolu soxla ndax dina xagn loolu jox yalla ci koo ko xamne yow dara jaralu la sax bu ñu noddoon ca jàkka ji nga bayyi ni ngay def te julli dara jaralu la kooku bu ko yalla ne woon reyal sa doom du ko def boo xam ne bu la yàlla ne kaay julli doo julli ak julli amul benn coono lal sa sijaata ba mu jekki jàpp ba sell bu la neexee sax laal sa parfa taxaw ay bantiloo di la upp yàlla woole ci loolu ne la hayya alal falaax kaay ci mbég mi nga lank parce que am na bànneex bu la kooku bu ne la sa doom doo ko rey moo tax nee na nattuwaay yooyu la war a natt suñu bopp ba xam ba la ñu toll ci suñu bopp moo tax nee na te di du nu fàttali ludul jébbal yàlla sa bopp jébbal yàlla sa bopp nee na ak topp yàlla ci lépp lu mu dogal nga defee nee na ñaar yooyu rek la mu mën a jàngee ci feetu tabaski mooy jaam bi jébbal boppam boromam ne ko amatuma xel aw ma xalaat aw ma xol aw ma kàttan yow rek lay jëm ci mbooleem force yi nga ma dénk lu ci yàlla soxla rek lay def loolu rek la ñuy doy doomu aadama loolu mooy jébbali ci sa borom waaye bu fekkente ne dem nga ba yegg ci xel ci dayo jàpp nga ne jàng nga am nga xam jàpp nga ne sam xel rëy na jàpp nga ne sa kattan rëy na sa mbooloo rëy na ba tax na léegi sax mu yàlla àddoo pour nga gën ko danga nga koy xalaat bu mu dëppoo sa xel nga door ko nangu loolu am na na ñoo xam ne lu yàlla àddu lu yonent bi àddu pour mu gëm ko foog nu natt ko ba mu dëppoo ak seen xel ñu jëfe bu dëppoowul ak xel rek ñu naa ah, loolu xel loolu musiba la te nee na loolu yegg nañ foofu ci jamono boo xam ne bala ngaa nangul yat ba nekk jaratu ko alladina yuminuuna bil xëy ñooñu la yàlla tag mooy ñi nga xam ne du ñu xaar ba teg seen bët ci bi yàlla di wax ñu dóor a gëm ñoom bu yàlla doo rek ñu gëm bu leen ca preuve ba fekkee baax na bu leen ca fekkul it yàlla moo ëpp doole leneen lu leen di wan ne yàlla dëgg la. nee na allahu akbar kabira والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا نيجي تدور يا يسمى برام أك مغايم وتم تتم تبغى أمول دايا يسير نسات نويت تلف بلو نكوي بوكالة سبحانه وتعالى